Je mënul troisième mandat question Bobo, est-ce que question juridique la question éthique man damay question juridique question juridique la question juridique parce que question éthique man euh, parce que gis nañ politique ñu gis nañ président Sall euh, ne damay euh, sept ans def cinq ans à neuf reprises wër aduna bi yëpp wax ko toog ba mu neex ko mu ne wàññeetuma dal di mbubboo conseil constitutionnel te munoon na bind texte munoon na bind wo euh, ne dafay wàññi ci biir projet de loi bi jébbal ko askan bi parce que conseil constitutionnel am na lu ko féete kaw askan bi moo ko féete kaw absolument ka nga xamante ne moo moo moo le conseil constitutionnel est le gardien de la constitution mais gardien kër gi kay xanaa hmm. borom kër gi ko ëpp sañ-sañ ci biir kër gi ah loolu kon lolou mu mu def noonu mu boo conséquence non seulement fay wàññi geudou institution judiciaire yi mais aussi da fay euh, wàññi geudou démocratie et puis dafay euh, wàññi euh, ngëm-ngëm bi ñu war am ci kàddu ñi nga xamné ñoo ñu jiite donc lolou man mënuma teunku ci ci côté bobu mais en réalité c'est pas un problème euh, moral mais c'est un problème juridique pourquoi c'est un problème juridique Là, nous avons donne problème de droit constitution depuis 2001 nul ne peut faire euh, le mandat n'est renouvelable qu'une seule fois article 27 donc même Abdoulaye Wad, depuis 2001 a fixé ne peut pas def lu mandat donc c'était clair depuis 2001 problème bi Abdoulaye Wad nekkul que il euh, troisième mandat mandat bi constitution constitution du 7 mars 1963 mandat mandat ma am le problème de droit mais est, mandat dañ ko parce que constitution depuis 2001 dafa limiter mandat à deux nul euh, le mandat ne peut être renouvelable une fois ñu ñëwaat en 2012 en ci ci disposition boobu la ñu président Macky Sall bi président Macky Sall di falu fekk nañu wax ne mandat bi mën nañ ko renouveler benn yoon rek dañ ko mën renouveler. donc quel mm. mënul def ñaari mandat mu ñëw. Euh, tek Abdoulaye Wade li fi jotona xew et tout mu am nima ko waxee sank euh, CNRI et tout mu am léegi euh, une réforme de la de la constitution mais une révision de la constitution mais révision bobu dafa ñew deugal li fi amone mhm. dindiwu ko daf ko deugal donc mom bi muy falu lolo fi nekkoon. réforme bi bi muy ñew aussi dafa deugal li fi nekkoon. Mhm. non seulement dafa deugal li fi nekkoon gën ko verrouiller manam gën ko dëgëral ba opinion nul ne peut faire nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs mandat moyen lan moy sañ-sañ bu askan bi di jébbal nit muy wax di dox ak di djef, ci touram. mandat bobu, sañ-sañ bobu, mën nek nekk at ci ñeent ci diiru ñeenti at mën nek ci diiru juróomi at mën nek ci diiru ñaari at ah. mais sañ-sañ bi la wax moy mandat bi sañ-sañu wax dox ak djef, ci turu askan bi lolou moy mandat ñu né nul visé le mandat bi mais le titulaire du mandat ñu né ki nga xamné moy exercer mandat bi té kenn mënul wéddi né 2012 président Sall moo taxaw yëkkati loxom wat devant Dieu et devant la nation sénégalaise qui va respecter la constitution ñu fal ko 2012 2019 muy benn mandat 2019 muy 2019 nous ko falaté muy yëkëti yëkkatiwaat loxom wat ñu falat ko mm-hmm. ñu installé ko muy mandat 2019 2024 léegi constitution bi dafa ne kenn mënul def lu weesu lu ëpp ñaari mandat yu toftalante mm. kenn kooku kan la président Macky Sall la ñaari mandat yi ndax toftalante nañu waaw mbaa déet 2012 ak 2019 kay 2019 ak 2024 dafa toppalante loolu lu leer la ne ko donc euh, loolu amul luñ ci laam bo article 103 de la constitution dafa def un double verrouillage mu la forme républicaine de l'État, le nombre de mandats, la durée et le mode d'élection du président de la République ne sont pas susceptibles d'être révisés. Ah. C'est la l'alinéa 7 léegi l'alinéa 8 de l'article 103 ñëwaat renforcer l'alinéa 7 mais l'alinéa 7 ne peut pas être révisé donc nous avons ces dispositions mhm. toutes ces dispositions après ñëwaat di troisième mandat ñëw ñu la école une pomme plus une pomme égale deux pommes mhm. un mandat plus un mandat égale deux mandats Maintenant, fan la ñu mun un mandat plus un mandat égal un mandat ñu ne non parce que nous ko wax juriste yu xarañ lañu. loolu dañu war a respecter sénégalais yi respecter constitution parce que sinon euh, ñi nga xamante ne ñoom ñu xool ci bitim réew du naw parce que dañu ces africains là ils ne se prennent pas au sérieux